19, uh, the Gambia police have alerted the public on its search for a young man believed to be in his 30s suspected with COVID-19 who have been on the run. A team of healthcare workers together with the police on Saturday, 11th of July, visited his residence in Manjai Kunda for isolation and treatment, but uh, their mission was futile as family members interfered leading to his escape. Health workers and police have since then urged the public to contact the toll from 1025 line and report the nearest police station of any information relating to such cases. The authorities also appeal to the public to avoid interfering into the works of health workers and police as regards to the implementation of COVID-19 regulations. This incident occurred at a time when frontline health workers in the Gambia were on, the sit, were on a sit-down strike over as risk allowance. The situation led to a shutdown of the emergency response call center and stopped in the collection and testing of samples of suspected COVID-19 cases. The Ministry of Health, in a press release, uh, rather held a press conference over the weekend and pleaded uh, with the government to shift response to the financial demands about a week after the first death of health worker as a result of the coronavirus global pandemic recorded in the country. Uh, Lulu, um, for now, Lulu is doina waar. because Fumne Kani, a 30 year old young uh, old young boy Kukumo escaped escape time when nekkoon di uh, téye téye uh, ko pour intercept ko yóbbu ko si quarantine for treatment kooku noonu waaye family members am yi in the process of doing that family members am yi interfere with the matter as a result kooku mu escape so loolu mu nekk loo xam ne dafa doy waar because kooku su escape we don't know how many people the person will have contact with ak ñooñu noonu they might be at risk of the coronavirus ñooñu tamit suñ ko xamul mun nañoo am contact with keneen because dañ dee wax ne Gambia moom benn nit lañ you know soo ko waxee sa sometimes nga waxtaanaa nit sa nga realize na da ngeen bokka in some aspect so Gambia bi dafa tuuti tuuti boo xam ne like lii mun naa jur lu bari Amadou. waaw um, it's it's rather unfortunate uh, Euh, you know kenn ki moom instead of ñu dem jëli ko ci këram moom moo waroon a yóbbu boppam wala moo waroona woote ñu ñëw jël si ko euh, bu yégee nag xëy na euh, yaakaar ne am na feebar bi ñu dem pour jëli ko comme noo ko waxee family member si intervene dugg ci affaire yi ba moom mu rëcc a daw kenn xamul fan la nekk loolu foog naa waruta am lu munta xew situation bi moo moo demee ni lii nañ ku ne war na ci am understanding ne lii nekkul ne police bi moo ñoo moo leen neex wala ñi nga xamante ne mooy health workers si moo leen ne ñu ñu dem you know euh, wax na danga nga feebar wala pour jël la situation moo ñëw situation bu ñëw nag dafa am lu moo àndal te loolu euh, xëj na léegi du la neex wala duy duy duy yomb day métti euh, xaw ma demin bi naka la waaye xam naa ne dañ dañ dañ xam nga ban consent la family member bi am ba ñu bañ loolu mu ñu yóbbu ko euh, waaye foog naa ne lii moom lu lu lu doy waar la comme noo ko waxee ñu euh, ñu am yaakaar tamit ñeneen nañ dimbale. ñuy liggéey ci hôpital yi ak tamit police bi yu mel ni ku ko xam rek nga call number bu ñu wax euh, nga nga ñu dem jëli ko wala mu fexe mu mu fekkee ne mu naayo bu boppam waaye lu gën mooy mu toog ñu ñëw jël ko cek ko ñu yóbbu ko ci quarantine fu ñëw euh, fajee nit ñi euh, leneen li ma cee wax rek mooy strike bi comme nuñ koy waxee tamit 1025 pour call ko tàyyele yëpp ñu ngi doon wax ne doxul te fekkee tamit nit ñi number boobu lañ war a call te ñi fa nekk kenn nekkatu fa bi doxul loolu tamit beneen affaire la foog naa daal moo demee nii war nañoo jéem a seet ni ñu ko contrôler nit ñi jàppale tamit ñuy nekk ci ci hôpital yi wala di ci di faj nit ñi ak tamit ñëpp ñu fexe li am solo rek mooy nu ñoo daanee feebar bi génne ko si réew mi mm. euh, loolu rek moo am solo noo ko mën a defee rek ba contribuer ci loolu dafa am solo ñu muytu di euh, xajamal affaire yi mm. loolu day gën a métti ci ñëpp parce que mm. lii moom euh, du fu mu nekk ni amul kenn ku yëgul impact bi so is is high time ñu collaborate jàppalante mun a daane li nga xamante ne mooy mbor bu mbor bu taxaw suñ kanam mooy mooy Covid 19 bi mm-hmm. te gisuma li war a taxal nit mu nekk sa kër feebar ñu jëli ko ngay ngay bañ ba kooku di di rëccal. ah loolu la te waxoon nañ ko fii sax ñu ne strike sit down strike by the health workers dafa andi a huge impact in the Gambia te gis nañ ne ñu ngi ñu ngi gis one of the impact ah, lii 1025 bi xam naa ne case bi rek moo feeñ waaye xamuñ ne whether there are other cases too. te kii fu mu nekk ne ñu ne is a suspected COVID-19 case la mm. so it's not confirmed yet because they did not conduct the test yet so xam naa ne lii daal ah, fan naa ne family bi daal ah, seriously because Amadou nit ko xam ne mu ngi dëkkaa yow day suspect ne dafa am COVID-19 xam naa ne yow is a responsibility on you pour nga dimbal health workers yi ñu yóbbu ko ku ñu confirm yow you will be relief yow koo xam ne dañ wax ne da yow a suspected patient ak sa family members tamit dinañu relieve waaye fu mu nekk nii fu mu nekk nii xam naa ne daal escape na waaye gars seen xel yi dalut because hence wax nañ ne suspected COVID-19 cases mun naa am am na si ñoom ñoo xam ne sax mun nañoo mun naa am gars regret na decision buñ may because they are at risk they are family te an xam nañ am naa ne tamit dañ am contact with that person so whether those people also have the COVID-19 or not kenn xamut ko. so dafa doy waar te xam naa lii daal ah, it's not about politics dégg la Gambian lu nekk daf ko de bugg a def politics waaye façon yi daal xam naa ne ah, waruñ koo def politics suñ health la defa important torop pour ñu saama ko ñu make sure ne we healthy and ñu dem into quarantine and and and make sure ne we are healthy and save ourselves save our family and save the Gambia ñaan waaw du bari sax ko mooy ne rek moom jalgati na corona law bi hmm. parce que corona law bi mooy ne ñoom suñu amee si yow soxla pour yóbbu la quarantine da nga war a dem bon yóbbu quarantaine taxul boromam am Covid 19. Mm. mun am na ñu bari dem neen bu ko su ñuy dem sax. Mm-hmm. lu dul am mooy ëpp. bu suñ su ñu yóbboo ñaar oo ñett mooy mooy am. kon warul nekk tamit big case bi war a ub boppi Gambien si yëpp. anyway mënul dugg fu nit ñi xamut bu si biir réew mi la nekk dinañ ko xam waaye su amee c'est lu garaaw la su amee bu ko mun naa safara la boo xam ne mu ngi koo euh, dugal fii dugal fii dugal fii mun naa lakka so many hours so lu waaye lu war rek mooy ne rek mm. wartoon dem jalgati na corona law bi parce que law bi loolu mu ngi si bëggul nga dem ba tax na sax léegi lopitaan boo dem sax PIO yi ñu ngi fa ñu ngi ñu ngi fay li laajoon naa ko waa ji lan moo tax ñuy nekk fi mu ne am na ñu nga xam ne dañ dee bëgg a euh, jaay dëgërante bopp ak nit ñi su boobaa sécurité bi dina ñëw wane ne loi bi dafa wan ne amee si yow ñaari xel da nga war a dem si quarantaine mm. lifin bi soo soo fa tindee suñ gisee ne amuloo ko nga dellu si kër bët ñu bari nag mm. complexe moo si nekk si koñ beeg yooyu noonu mm-hmm. diw yóbbu neen ko dafa am bët bu ñuy xool si yow ah, so loolu loolu mooy moo moo nekk di main problème moo tax lu taxa daw kooku yëpp du fourteen days bi de mm. waaye jël neen diw si koñ bi rek yóbbu neen ko ah. Euh, Lamine Fall soo yóbbu nañ ko Korentaayam su amee ñëwul sax dafa am bët bu la askan bi di xool parce que ñun loolu moo nekk suñu aada bi. Ah. kiis ko def problème leen def euh, coronavirus bi foog na ne yow. te ñu tem ñu utal la tur sax tem ñu utal mooy kër googu de Falleen moytu leen kër googu sant Fall parce que ñooñu booy coronavirus mu ngi fa barki démb leen yóbbu Lamine Fall this is the problem. Mm. so loolu nag ñu euh, ministre of health dafa war a am benn. xalaat bi mu si waroon a am woon dee ma woon nit ñi ne lii du dara nangam nangam waaye ba léegi itam ñoom itam pour synthétisine bi dafa mel ni dafa des boobu itam côté boobu mu ngi xaw a nelaw tuuti si ñoom. waaw foog naa ñu ñoom dañ doon wax depuis kañ di wax ne sa waaw lii comme like malaria la and any other disease coronavirus tamit noonu la mel ah, so ñi ñi dañ ko war a treat as such it's not something that is exceptional daanaka maybe ah, moom lu moo jangoro la jangoro la jangoro jangoro te soko amé fon naa da nga wara dem fajuji lolou mo gëna am solo docteur jang de wax nañu nañu dal ay PBC yooyu noonu dal mom baax na si trop lolou lañu wax te nak fever la bo xamné comme yi fi nekkoon rek la ñang ñal soj ak gaay wa yu am soj da nga def su rek te mu ne so fajé boromam dina wër so fajé boromam dina wér waaw atia problème bi ne su la fattee du am machine boo nokkee tax fa ñu yóbbu leen si bi faj leen waaye daal foog nga nekk di. yàlla yàlla ci yàlla yàlla ci yàlla musal daal léegi waaw.